waaw assemblée la fa xew kenn mënu ko rafetlu ku waxtaan rek dëgg suñu boroom nangu waaye buñ ko rafetluwul it li wér te wóor bu fekkee dëgg rek lañuy ñuy wax mooy waa APR ak seen député boobu ay la yëwén ñoom ñooy sookee la fa am ndax réew mii di Sénégal dafa am lu ñu baaxoo suñu kilifa diine yi dañ leen di xormaal dañ leen di jox respect mënuloo fekk nit kilifa diinaam mu yaakaar ko àdduna ak àllaaxira ngay jël wax ju tegginiwul di ko teg ci kilifa diine googo ñi wax la nga continuer ba muy wax lu tegginiwul ñëpp a ko waroon a arrêté y compris kon yaakaar naa ni ku wax lii wax la ca des loolu mooy dëgg moom ci boppam ak ñu mel ni moom ci boppam nañu bàyyi tooñ ndax tooñ googee moo indi lii lépp nag coow li coow li li mu bari bu dul woon ak tooñ googa lii am du am donc loolu lañ ci wax